yukalliman alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla di sant xaarif muy jërëjëfee Baye Niass allah ñu ngi gërëm na yi nga xam ne ñooy taxawee bis bi ak lu jot wax dëgg yàlla muy ngoon xam ne suñuy mbégte la suñu tiitar la euh, daayira mbootaay kuréel bu askanale seen bopp Cheikh Ababacar Thiam ñun dañ leen di ndamoo dañ leen di tiitaroo lépp loo xam ne yéen a nga ca ñun dañ ci daal dugal suñu loxo ndax amuñ ci koñ bi ku gën a foor Baye Babacar Thiam banqaas la boo xam ne ca fayda ba la jógee ñëw ci bi fii kon su ngeen amee seen góorgóorlu seen jàmbaar jamono ñu nekk ngeen di di ñu nàmpatal ci góor boobu am nañ seen gëm mën am nañ seen càcc ñu leen di gërëm dem ñu gis te duñ taxaw mukk àdduna ndax loolu la ñu gëm ñu ngi lay xool ñu ngi lay suivre ñu ngi xam actualité nationale am na fit am na engagement am na xam-xam ñu ngi lay suivre ci médias yi ñu ngi suivre sa activité doy nañu sant ci yàlla ñu ñaanal yàlla bu benn kàllankoor ñu ngi ñaanal yàlla lépp loo bëgg ba nga koy bëgg yàlla ko yàlla ñaan yàlla xoli a yàlla yi bàyyi nekk ca sax tam mag ca ñu la ba la wax ñu def ko yàlla garanti la ba lépp lu la ko def barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Ibrahim barke Cheikh Ahmad Tidiane Chérif barke Baye Babacar Thiam lu ñu am ci bàyyi déglu Baye Babacar Thiam ñu ngi koy gërëm bu baax te mu ngi dégg nag ñu ngi sant yàlla bu baax li mu jëmbal moom dana sax ci kanam la ñu ñu ngi gërëm Cheikh Maodo Hadi mu ngi gërëm njabootu Baye teg Baye Babacar teg ko sama ko ndax wax dëgg yàlla suñ kilifa bu dara la tey kenn ko doon jël ci mbooloo mi commencé bi imam moo si bi tey bu la waxee ñu jaar ba da nga xam moo rek mooy tali yoon Baye Babacar yéen yéen ay njaboot doomam mais bu yeneen njaboot ci dëkk bi Cheikh ñu ngi asalaamaaleykum wa rahmatulah. ginnaaw bi ma jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi gërëm samay waajur di gërëm sama xalifa bi toog muy Alaaji Samba Niang ibnu Alaja Alaaji Alassane Niang nuyu ki nga xamante ne mooy ki nga xamante ne moo waral bés bi di Mame Fatou Dia di nuyu sama collègue muy kay may naa moom comme ni nga ko daan defee ci kër Cheikh Babacar Dia ak njabootam kon ñu ngi lay def wax tafadal yu naa di sant nag ñi nga xamante ne mooy Ibrahima Khalil Lamé Diop ak sama sëriñ ñoom ñëpp di bàyyi na faal Xadi Faal bu ma waxee te waxuma la dara sama xol bi la. baay moo di borom kàllaale ak tijaani faal. Allah Allah Allah kun fa yakun kenn la. laa ilaha nekkati fa yoo xam ne xool dañ naan Mustafa Habibullah Bashirullah Nabiyuna nan dama jagan bakanaka dakaw seeni hoo aduna nan fa amina salatu salam huwa nukusar huwa hadi aminunna huwa aduna ibrahima yasulu khadi dalila dalila lihabibi qulubu min saa ñu ko. dégloo dégloo. ñu dégloo. dana daa ne ay niya man ay na ay na laa ne ay niya tëlu. ba indal ay na ay ya daful jabaal ma àll bi tey bila masali. وليس لأي منك أين فيعلم أين أين أنت وكيف الكيف وتنازع عن الكيفية بل كيف الكيف لا من كيف يستر فإن الكيف كيفهم كبار ما حل في شيء بلا مثل وليس للوهم منك وهم فيعلم وهم كيف أنت والصلاة والسلام على مثل كلية عين مثلها وسرها صلاة تقص بمجامع قلوبنا إلى كمال معرفتك ريان سكوني سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعدة من شيخنا وسيلتنا إلى ربنا ثم إن محمد الحسن يأتياني رضي الله عنه وعن وارث السر لي بالإطلاق بلا نزاع ولا شقاق غوث العباد نقوم بلادي يا قوت الحق روح المعاني مولانا شيخ إبراهيم يسر رضي الله عنه ñun ñëpp nañ bokk wax jërëjëf Baye Niass ñun ñëpp nañ bokk wax jërëjëf Baye Niass dañuy wax jërëjëf ngi yàlla ci barke sëriñ bi mu continuer taw bi rek te teel ñu bi ndax Baye Niass radiyallahu anhu dafay mu ne bokk ci jamono yi nga xamee ne yi nangu ñaan la yi yàlla jëri taw te joxe nañ addiya Baay léegi kon su ko defee danañ sax di ànd sëriñ bi di yéene suñuy aajo ba jotaay bi di tas bu paree rek mu tànkooneel ñu ñu tasaaroo yoon ñu ngi ñaan yàlla loolu ñu wax ñun ñëpp alhamdulilah dañuy tànnagal sëriñ bi ndax ñëpp moom la ñuy xaaral ñu dégloo. sëriñ bi ñu ngi lay ziara ñu lay ndokkeel di sant yàlla di sant yàlla si jotaay bi ndax may fàttalil Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu tey dafa def jotaay bu rëy ca Mauritanie ne ñëpp lay wax alhamdulilah ñëpp ne alhamdulilah bàyyi ne sant leen yàlla nokki naa ci seen dëkk wëlee yàlla fu mu noppi ci dëkk ñeent fi ñeent fi fan waaye mooy yàlla yàlla yëgal na ko sikkuñ ne wëlee yàlla moom sëriñ la moo wax ne tànn na leen ci xaybu ngeen nekk ay wëlee yàlla waaye wëlee yi bi ma ci gën a neex mooy wëlee bu mel ni yow ak ñu mel ni yow ndax Cheikh Ibrahima radiyallaahu anhu wax nañu ne sëriñ buur lay jur mu ne buur mu ne éfer lay jur sëriñ Baye dafa wax ne éfer ne déglu leen li baax mu ne sëriñ buur lay jur mu ne buur mooy Malick kaaf moo ci mu ne kooku éfer lay jur kaafir nag raa moo ci mu ne kooku raayee lay jur sàmmkat lay jur mu ne kooku nag ayin moo ci mujj kooku mooy mujj juraat aalim loolu Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu mooy ko waaye ñu ngi sant yàlla bi nga xamee ne yow duhoo buur ñu ngi sant yàlla ci loolu bi nga juddee jaay sa njureel nga mucc ci ma bu buur sol malaanam Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu kon ñu ngi sant yàlla et buñ la gisee boo ma lëngee ma lëng la li may wax mooy yaa ngi ci xilmal baay bi ma ne ko si mu ñaanal ma yàlla ñu ngi lay wax la bàyyi waxoon Seydi Ahmada Tidiane ci makkaan bii ahlan wa sahlan marhaban summa marhaban law anta tawaafina tatibul maraja bàyyi nee na Seydi Ahmada Tidiane yi maa ngi lay wax ahlan maa ngi lay yaatal wa sahlan maa ngi lay yombalal marhaban bismillah marhaban bismillah ba muy ñeenti yoon te xam nañ ne alxaqaayiqu arba law anta tawaatiina tatibul maraabi' soo ñëwee ci suñ barab bi nag su ko defee mbooleem bàkkaar yi fi newoon da nga ko jël yóbbaale ko kon ñu ngi sant yàlla sa ñëw bi di wax ne fekk yéen a ngi xool jëmu ji rek dee leen yéene seeni aajo aajo bu fi waay yéenum faju ndax wulliyu yàlla la xaqan bàyyi wulliyu yàlla la Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu nag wulliyu yëpp moom moo leen di nandal wilaayatul osma taxaqaqat wa a nii ilayya wa minni maa yufaadu li bàyyi na ne wilaaya bu mag bi def na taxqiq jël décret signé ne képp yàlla tey man maa leen naan daal man wax jërëjëfee bàyyi ci sa ñëw di wax jërëjëfee bàyyi ñëw di wax jërëjëfee bàyyi ci ñëw waaye di ndokkeel Seydi Hadi xam ne tey mooy xalifa bi ñu koy ci taxawaay bi comme ni ko rakkam seedee muy Cheikh muy Cheikh comme ni mu seedee Moustapha comme ni mu taxawaayam si ñoom ak ni mu leen ak bëtëb yërmaane bi mu am ci ñoom ñu ngi koy ndokkee ci loolu waaye ñu ngi ndokkal Seydi Ahmada Tijaan yi moom it toppin wu rafet ñu ngi ko toppee moom it ñu koy ndokkal ci loolu di ko ñaanal yàlla di ñaan ñi ci topp ñëpp yàlla barkeel leen ba nga xam ne fi seen bàyyi yemoon danañ rëdd tool bu rëy boo xam ne dana xeeb seen toolu bàyyi comme ni ko bàyyi waxee bàyyi mu ne doom ñett la doom ju bon ak doom ju baax ak doom ju mu ne doom mu ne loolu Maam Alaaji Abdoulaye moo ko wax doom ji kon mooy lan mooy koo xam ne la nga fekkoon sa baay man manoo ko baay mu ne kooku doom ji bon la doom ji baax mooy lan mooy koo xam ne la nga fekkoon mën na ko baay mu ne kooku doom baax la doom ji gën nag mooy kan mooy ki nga xamee ne lan mu fekkoon baayam man mën na ko ba man lu gën loolu ñu leen di ñaanal yàlla loolu seen waajur liggéey na ko te liggéey fondement ci barke moo ko doole fondement ci liggéeyu barke kon ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla may leen taw fetal taama sëriñ ñu ngi jégalu guddi na xam ne jël sa temps waaye ñu ngi ñaan yàlla tànk yi Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu tegoon tànkam ci diggante moom ak yonent bi ak Seydi Ahmad Tidiane yi gis nañ la yaa ngi ci yoon bi man saara bi wasal ñu ngi lay wax amaan ñun ñëpp suñu saako mu ngi suñu kanam te mooy Cheikh Ibrahima jërëjëf day bàyyees jërëjëf day bàyyees jërëjëf day bàyyees jërëjëf kooku rek moom moo yendoo ñu wax ko jërëjëf ndax moom moo wax ne wasal ak bu kaani laysa bihi badeetun kon kooku jaam boobu dafa jeex tàkk dara desul dégg nga loolu mu ne wa maa huwa illal Mustafa lil mu'aaxiri kon Cheikh Papa Diop laaj na addeemoon naa Cheikh Ibrahim te suñ sëriñ bay dara ka jaam daf daan wax ne ku sant yàlla mun am wala gërëm bàyyi ñu ko xam le nda yàggoon nañ fi yàlla ne fi yéene ko lool waaye comme ne jëlañ ci yéen ah a xa ànd wala bu ko mel ngoo yàlla ngoo ko foo ko ñu tey un tey deret deretam su ñëwee bii doon mbootam ndax lan ne ci maam sëpp moo koy doon kon nañ ñëw ci ak ya bàyyi ay tuuti